dëkkub doore fay yoo ko tasoon kumba am ndey kumba amul ndey moo nar a tas réewum Sénégal ñu àndandoo yër xër wu njëkkul observateur ak promoteur bii di Luc Nicolaï Enco lu tax ñu libéré Seydina Fall di Bougane Zélie bàyyi ma fi lii dey moo naqari Luc Nicolaï ginnaaw bi mu ñaanee liberté provisoire ñu bañal ko ko Luc Nicolaï nee na man kay nag li ma metti lépp seet naa ba seet mënuma koo wax waaye ni ma koy fajee du nenn rek nu dut grève de la faim ñu dem ci leneen di ki kenn munta wax ba jeexal te tuddoo ko te buñ ne ma ngay dem rek mu gën a jekkalub toogaayam di jàngoroy coronavirus bi ginnaaw yokku teegu watatu gu metti gim nekkee fii ci réewum senegal te li koy faj jaaxal ñépp kiy doore gis li koy faj mi ngi ci xët wu njëkk Sud Quotidien ubbi leen journal bi ñu fekk fa ministre de la santé ministre de la santé nee na ci page 7 bu journal bi seet naa ba seet waaye jàngoro ji li koy faj du lenn lu dul chloroquine docteur Seydi mel ne ku koy feelu ci xët wu njëkku l'observateur naan ko secret yi kenn xamul sax ci chloroquine boobee sax day mooy cas yi moo ci man dara ki kenn mënul ci moom dara tem sonal lool kërug sant gi mi ngi ci xër wu njëkk réew mi quotidien ubbi leen journal Sarr nee na guerre dëgg day saf mondial te xeex bi dëgg-dëgg sax mi ngi bëgg a door a commencé nag journal bi nañu moom kay nag dafa war a wax rek nag wala mu noppi Sarr nañu l'Afrique bu tijjee ay frontière am mooy mi ngi bëgg a sombi lu mënta naan ne loolee moom mooy tàmbali kaa kaa importé yi rek te kaa yooyu sax day la muy faat bari na ci mim réew néew yooyee sax day li ci Sénégal am buñ ko doon séddale manees na ña moo jël raw gàddu gi du samay kàddu ubbi leen vox popili journal bi nee na juróom fukk ak ñetti néew yi senegal jot am manees nañ ña fukk yépp Tuuba lan dëkk ba ca mujjee rek mooy jaaykat ba dëkkoon gaar bu mag te mujjee faatoom hôpital Matlabul Fawzeyni ki faatoom ëlëm te jaaxal waa askanu senegaal moom ci xët wu ci njëkku la témoigné seen journal bi muy lu doy waar di ki ñu naan Baye Fall Baye Fall mi jël xaritam rendi ko xatiit ne kuy rendi xar moo ëlëm askanu senegaal rek lu dul morsa cigarette kon nag aussi nu njaay tëjal ndax man moom lan réewum Sénégal jaaxal nañ ma cigarette rek ñu ciy faat nit ak bakkan ni mu foore ba ëllëg ak